billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wa salla allahu ala sayidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa saxbihi alxurri almayamin wa man ittabiahum bihudaahum ila yawmi ddin bokki jullit yi ñu ngi ziyaar ñëpp di ndokkale ñëpp ci aljuma mubaarak ci shahru ramadan al mubarak di weer wi nga xam ne ci la yàlla wàcce woon alquran mu di anniversaire jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jële ko ca baytul izza jële ko ci lawhul mahfuz wàcce ko ci baytul izza di ko fa sottandiku diiru vingt-trois ans moom yàlla moomu nga xam ne moo segg alquran di ko wàcc étape par étape xew-xew par xew ci weer wii la wàcce woon alquran muy weeru koor ñuy ñaan yàlla liñ ci nab na bi mu néew mu bari yàlla ñu ko yàlla nangul di ñaanit yàlla bu mu nekk suñu mujj koor di ñaan yàlla nañ ko yàgg a teewe yàlla may ñu ci wér kàttan ak fekk ubbil ñu ci bunti xéewal yépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te defal leen ko Euh, weeru koor nag mbokk yi farata bu yàlla santaane la te dañuy wax ne lu yàlla santaane def gaa gën ñàkk def ga ñu jële ci abi hurayra radiallahu anhu mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn arab yi dafa ñëw ne ko yaa rasulallahi dullani ala amalin ida amaltuhu daxaltul janna moo bëggoon yow mi yàlla yónni nga tegtal ma jëf ju baax joo xam ne su ma ko defee danaa joggi sama tànk ca jëf jooje ne man danaa dem aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko an taabudillaha laa tushrik bihi shay'an wa tuqimu salaata almafruda wa tuqimu salaata almaktuba wa tuaddi zakata almafruda wa tasuumu siyaama ramadan mu laajee yonent bi na ko dama bëgg nga tegtal ma jëf ju ma joggi sama tànk pour dem aljanna yonent bi ne ko del jaamu yàlla te bu ko bokkaaleeg dara da ngay julli it julli yi yàlla wax ne nañu ko julli muy julli farata yi di julli juróom boo noppee soo amee lu mat ni saab nga génn ca azaka bu la fi weeru koor fekkee ànd ak wér ak tal nga woor ko ni la ko yàlla sante arabiyu ba ne ko walladi nafsi bi yaddihi maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk laa azidu ala hada shay'an abadan wala anqusu minhu maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk yow mi yàlla yónni lii nga wax nii moom lay jëfandikoo de ci laa nekk yokkuma ca dara waaye wàññiwuma ca dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tourné xool saxaaba yi ne leen ku bëgg a gis ci yéen nit ku jëm aljanna mu jafe ko na xool ci jëmm jii di dem nitu aljanna nga ne loolu li ñu ciy dégg rek mooy mbokk yi euh, base bi nga xam ne moom la yàlla soxla ci liñ koy defal dëgg dëgg dëgg jaamu yàlla gu sell la gu raxul dara euh, nit ñi nag gëm nañ yàlla waaye wuulu wuñu ko nit ñi gëm nañu yàlla waaye bis penc moo nekk suñu problème ñun ñëpp te yàlla index ko ci alquran ci aay yu baree baree bari yow ma joo dégg yàlla wax ko ci alquran rek na la leer ne yow may bis penc ja moo tax waaye du beneen yow ma ndax bis booba dafa ñor yàlla ñor goo xam ne li mu nar ak ñun yépp foofa la koy defee ci teraanga waaye li mu nar ak ñi ko weddi ñépp foofa la ko nare ci ay duma yàlla nañ ci yàlla musal moo tax mu wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran ne ko amma yatasaaluuna ban laaju diingat ak bu laaju weddeeg réex-réexle la sa gaañi de laaj ani naba il azimi ci xew-xewu bés pénc bis bu rëy boobu gaa yaa ngi naan dana am ak du am mën naa nekk ak mënta nekk yàlla ne ñoom luñ ciy laaj a ah, bis bi la ñuy laaj alladi hum fihi muxtalifuuna moo leen jural uute gi ñu uute ñii jëm ndeyjoor ñii jëm càmmoñ ñii ne bis bi dana am ñii ne du bis bi du am yàlla ne kallaa sa yaalamuuna jullit ñi danañ xam ne bis bi am na bis bu ma dajee ak ñoom ba ak ñoom yiw bu keroogee danañu xam ne bis bi am na summa kallaa sa yaalamuuna yii fiir yi danañu xam ne bis bi am na su ma dajeek ñoom ba fay leen seen jëf ju bon jën daan def alam na najaalil arda mihaadan waaw ñoom naka lañ mën a weddee bis bi am na te man yàlla ma lalal leen suuf si mu dalee masriq ba maghrib amul benn dëkk booy dem ñu ne la suuf jeex na jéggil jàll ko ca ba ca des lépp yàllaa ko lalal boppam jël ndox mi sànni ci kawam te diigul xarul ñu ne man yàlla moomu mënuma bés penc xanaa du man maa leen tàllal suuf si ñu xotti ci ay armeel samp ci ay immeuble xotti ci ay marché dagg ay boulevard ñu ne man yàlla mënuma bés penc boobu yàlla ne wal jibaala aw taadan xanaa du man maa jël montagne yi def ko ay leste ndax yàlla wax nañ ne bi muy doog a bindu suuf boobu suuf daf doon yëngu comme gaal mu jël montagne yi dësee ko suuf soosu mu taxaw wal jibaala aw taadan montagne yi ma def ko ay leste wa xalaqnaakum azwaajan maa leen bind ci toqantalu manni yu bu weex toqantalu manni yu bu weex boobu ci la yàlla bind ku ñuul mais ci la yàlla bind ku xees ci la yàlla bind ku gàtt ci la bind ku njool ci la yàlla bind kiy làkk pulaar ci la yàlla bind kiy làkk arab ci la yàlla bind bàyyi ma ci la bind lépp lu ma ko bind ci benn toqantalu manni yu ci laa leen bind ngeen wute couleur wa xalaqnaakum azwaajan maa leen bind def leen ay góor ak jigéen amul kenn ci ñun ku tànn boppam pour nekk góor mais amul kenn ci ñun ku tànn boppam pour nekk jigéen yàlla nee na yemuma ci ak yéen pour wan leen sama bopp wa jaal naa nawmakum subaatan seen nelaw yi maa ko def ngir ngeen di dallu bu guddi jotee ba nga tëdd di nelaw ñu graissé la boo xëyee fudd sangu dara mu mel ni dara musulaa metti passage de grâce boobu ki koy def mooy yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala mais bu fekkoon ku tëdd nelaw ku ne dañ lay démonter comme ni ñuy def ab machine kon mbokk yi dara du jàkk dangay xool ndakaaru li muy rëy rëy bu deux heures du matin boo fi jaaree trois heures da ngay defe ni ñëpp faatu nañ te fekk na ci diir bu ndaw la yàlla rocc ci kenn ku ne lim rocc ci yow su la ko delloo waaltul woon doo bokk ci ñiy fudd bat set yàlla nee na wa jaal naa layla libaasan maa jël guddi defal leen ko ngir ngeen di ci dallu wa jaal na nahaara maashan ma defal leen bëccëg bi ngeen di ci kër-kër yi ngir uti lu ngeen dundee mbokk yi ku ñuy fay sold bu diis bu ne liggéeyu bëccëg a tax waaye du liggéeyu guddi yàlla nee na wa banay naa fawqakum sabaan sidaadan ma tabax juróom-ñaari asamaan juróom-ñaar yamale ko ba mu kecc amu ci benn bu ëpp sa morom asamaan si bi ko fi yàlla defee léegi fenn tojagul fenn xaragul te bu ko fi nit laloon wala nit mbaar ko fi mu tiim ñu kenn ku nekk suba su jot yaa ngi gees wala yaa ngi tiit defe na bés ngi ñëw mu rës ci sa kaw moo tax wax na ko ca sóoratu tabaaraka sóoratul mulk ne man maa leen tàllalal asamaan yi hal tara futurin ndax gis ngeen ci fenn fu càggante am ci li ma bind farja'il basara dellool sa bët bi nga xool su marja'il basara delloowaatal sa bët bi xoolal xoolaatal amul fenn fu ëppante yow ñaari mbàjj kepp boo ko sàngoo woon ils font benn feeñ yàlla yemale juróom-ñaari asamaan ëppante wuñu ci suñu kaw te benn daanoogul yàlla nee na yemuma ci ak yéen euh, wa anzalna min al mu'sirati ma an sajaajan ma roof ci asamaan soosu ay niir wàcce leen ci ndox mu sedd guyu ba noppi neex dangay xool niir wi ni mu toll ci asamaan su fekkoon noonu la ko yàlla di wàcce kon buy wàcc ñépp faatu waaye ci tame la koy dóor mu tas ko bala moo agsi def ay toq di ay guta gut di wàcc ci sun kow te léegoo léeg sax nga am foo dégg ñu ne la taw bi yàq na fa kon dara yàlla xajul ci ñun yàlla moomu moo ñu defal loolu te ci guti ndox yooyu ci lañu yàlla wàccal ñu di ci bay ci lañu bay kaani mu ñor we xat ci lañu bay màngoo mu ñor saf sàpp ak suukar ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yàlla nga ko saytuwaat ci biir yàlla nee na yemuma ci ak ñoom li nuxrija bihi habban wa nabatan ngir ngeen génn ci pepp mu ngeen dunde ak gàncax gu ngeen jox seeni mala li nga bay ci gerte bi nga ko bayee ba noppi musoo dem génn kër dégg ñu la la ñu ngi lekk am ngooñ ngooñ mi bu ñu ko bayee ba noppi xar yi ak nag yi ak fas yi ko moom waaye yow la nga ca soxla mooy grain bi mooy gerte ga loolu rek nga ca soxla moo tax wa anzal wa jaalna min al maai min al musiraati ma an sajjaajan li nuxrija bihi habban wa baatan wa jannatin alfaafan defal leen ay jardin yoo xam ne da ngeen ci féexlu yàlla nee na yemuma ci ak yéen yow inna naa teen jannatin alfafan inna yowmal fasli xanaa yëgu leen ne bis penc bi ngeen di laaj kaanam mi xaatan dafa nekk ci dat bu ñu date lu ñu date nag du ñëw ca daj ba du ñëw ta dat ba jotul mais yàlla nee na dama ko date utal ko heure utal ko limite bis bu jotee dana ñëwal boppam jarul ngeen di ci nekk di werante jarul ngeen di ci nekk di puukarewu yow ma yun foq fi suuri yàlla nee na bis boobu bu jotee danaa yebal sama ndaw li ñuy wax Israfil mu wal buftu bi lu mel ni béjjënu nag lay doon dafay lunkulu bu ko walee ci la yépp di jaar génn doole jooju muy ànd ak ci la yépp di jaarale génn moom yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala mu fanga jaam ñi fayante ak ñoom la muy fayante ak ñoom yàlla nee na fa taatuuna afwaajan da ngeen ma wuy si doon ay kuréel ñiy jóge ndeyjoor ñiy jóge càmmoñ ñiy jóge sow ñiy jóge penku kenn du sañ bañ yàlla ne wa futixati samaau fa kaanat abwaaban su boobaa dana xotti asamaan si mu def ay bunti bunt day mel ni saako saako ñax boo xam ne dañu ko nëbal sol ca ay xeer ni ngay gis xeeri di butt buttee di wadd noonu la biddiw di mel di rot mu ne wa suyiratil jibaalu fa kaanat saraban su keroogee da nga gis montagne yi ne téppét daw romb la di wuy ji seen borom su boobaa ci ngay xam ne yàlla mii buur bi moom dong moo am kàttante moo mën a woote mbokk yi jullit daal liñ ci mën a dégge mooy pour mu texe dafa topp yàlla jullit daal liñ ci mën a dégge mooy pour mu texe da pour mu texe dafa tege ci yoonu siraatal mustaqim mbokk yi yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala ci condition yu mel nii ci la tëgg àdduna waaye ci lañu sante it ne nañu ko jaamu mu di benn buur boo xam ne amul ndendandoo di kenn koo xam ne càppaa coli la wax na ko ca saaram wu tedd woowu nga xam ne mooy sóoratul ixlaas mu ànd ay dayoom yu rëy yoo xam ne sunu borom bi subhaanahu wa moo ko ca mooñaale baada audu billahi min alsheytaani irrajim yàlla wax ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad wala walam yakun lahu foon ahad nga xam ni carte d'identité yàlla kese moo ca nekk carte d'identité nag ñun bi ñu xamoon ñun day am nday am baay day am aw sant am cosaan am asl waaye yàlla moom amul nday amul baay ndax tudd na ko ci biir ndax moo ne lam yelit walam yuulat man yàlla seen borom bu tedd bi subhaanahu wa taala na ngeen yëg ne juruma kenn waaye na ngeen yëg ne man seen borom kenn juruma ndax yàlla kat dañuy wax ne mooy samadu te samadu bu ñu koy wax euh, dañuy wax ne mooy faire plein plein nag dañuy wax ne lépp lu plein lu bolok dara du dugg mais dara du génn te dañuy wax ne bu dara duggul mënuloo jur waaye bu dara génnu it kenn mun laa jur te yàlla mooy samadu mooy càppaaculi yàlla moo mu nga xam ne mooy kenn amul kenn kuñ ko mën a dendaleeg koo xam ne danga nga mën a ne yàlla ak nàngam moo tax shirku bu ñu koy wax dëgg muy méngale yàlla ak lenn ndax loo méngaleeg yàlla rek yàlla bind loola wax nañu ko ci suñu jataay yi passé yàlla wax ci alquran ne wa ma rabbuka bi zallamin lil abid man yàlla ëppale naa sama bopp di tooñ sama jaam te yàlla kat subhanahu wa taala moo bind jaam ñi moo leen sottandiku ca nam ko soobe bi mu bëggee ñu jubit dafa yebal ay yonant yebalul benn yonant kese mais dafa yebal ay yonant yu bari yoo xam ne ñoo ñuy orienté saa bu ñu demee ba nara a wàcc ligne bi ndax nag in hadha al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassir alladina amanu wa amilu salihat ah, yàlla nee na alquran ji man yàlla maa ko indi jaarale ko ci ay yonant ndax yonant yi fi jiitu woon amoon nañu ay téere mais téere yooyu du woon alquran amoon na ci tawret amoon na ci injil amoon na zabuur amoon na ay suxuf yoo xam ne wàccoon na nga xam ne dañ ko joxoon yonent yi euh, ba ci bi mujjee wàcc di alquran yàlla ne maa ko def ngir orienté leen ak di leen ko bégalee yéen ñi nga xam ne yéen a tudde seen bopp ay jullit kon mbokk yi euh, liñ ci mën a dégg daal mooy jullit na topp yàlla te bañ ko bokkaale ak dara bañ a wutal yàlla ndendandoo taxaw ci sa kem kàttan euh, te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu dénkoon ndax wa ma ala rasuli illa al balaagul mubin yonent bi ma yàlla yàlla nee na yonent bi ma yebal ci yéen orienté wu ma ko ci yéen ci dara lu dul ne na jotal li ma ko waxoon ci yéen mu jotal leen ko te su leen ko jotalee na ngeen topp ci ndigalam yooya ndax walillahi bayaanu wa ala rasuli tabliig wa alayna taslim lu leer daal ci yàlla lay jóge mu joxe ne jëfe leen nangam waaye na la wóor ne nag bu atte bi jotee wala woote bi jot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yàlla chargé mission boobu waaye nag ñun li ñu yàlla chargé pour ñu gëm mooy xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wommatu nangoo topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla orienté woon ñu ci alquran ne laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun li man kaana yarju llaha wal yawma al axir wa dakara allaha kasira yàlla newoon na orienté naa leen jël benn miroir teg ko ci seen kanam boo xam ni seen feuille de bi ngeen mën a dunde yépp pour tege ci sama ngërëm ci kooku laa leen ko orienté loo xool leen ko muy sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal sallallahu alayhi wa sallam ah, képp ku di jullit te bëgg a tege ci yoon wi yàlla gërëm da ngay jël yonent bi def ko sa référence dañuy wax ne na ngërëm ak yërmande jullit warta sàkku yërmande mais ngërëm la war a sàkku parce que ki yërëm dafa da nga lott wala nga mànkele doog a dikk ñu yërëm la waaye ngërëm nag moom su ko jullit dee sàkku mooy ritwaanullahi te yàlla daf ne wa ritwaanullahi akbar yàlla def ne man sama ngërëm man yàlla mu gën a kowe te moo gën a màgg ci yéen euh, dañuy wax ne na ngërëm ak gër ak ak yërëmaande boo ko bëggee xam ñu ne da ngay xool ci weeru 4 avril le trois avril da ngay gis ne président dana gracier ñu bari ñu bari ci nit ñi dana leen gracier ñi ñuy gracier nag mooy ñi defoon motif te yoon jàpp leen téye leen ci benn place waaye bu xëyee ña muy décorer di leen takkal ay légion d'honneur ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo jëfal seen réew ba seen réew kontaan ci ñoom di leen jox ay nomination di leen takkal ay médaille ak i garaat kon mbokk yi ngërëmal yàlla daal foor na te rëy na yàlla nañu ko yàlla defal te defal leen ko yàlla may ñu ñu àggale koor gi ci alhamdulillahi rabbil alamin di leen jox jataay dig daje ci beneen jataay ci seen émission shukran wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu